muqtidin euh, salaf la yaa asalaamaaleykum Maroc asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen ziar di leen màggal di jox ku nekk waay wàccuwaayam di wax ne ñu ngi digg Medina nag biir Maroc biir Casablanca di waajal xew bi ñëpp xam nañ xew bi lan la Wally Ballago Seck le sept bi ñu doon xaar ay weer di ko xaar ay semaine yegg si na tey tey la le sept yi wërëw a dem na pëng fu nekk nag dañuy génn ko biir Casablanca doxantu waxtaan ak musiciens yi waxtaan ak artistes yi nga xam ne tey jii nii. ñoom ñoo seq ak Wally Seck bés bi organisateur yaa ngi nii dinañ ci jox kenn mu sànni ci kàddu yi gàtt gàtt wax ñu fuñ toll fu ticket yi toll ñu ko gars yi di waajalee lépp dinañ ci waxtaan dugg ci biir hôtel bi dugg ci chambre gars yi génnee musiciens yi ni ñu fanaanoo ni ñu yendoo ak ni ñuy préparé bés bi ji bi topp ma ñuy waxtaan ak gars yi doom day naka waaw ñu ngi nee la sant yàlla yaa ngi cool maa ngi cool bu baax sant yàlla bu baax la man tur bi man maa ngi tudd Bokar il paraît yow ci organisation yi nga boo waaw waaw d'accord waaw man ci ci ci gars yi organisé laa bokk depuis le début. Hmm. noo leen di waajalee bis. moom saa waay lépp pare na instant bi waale la gars di xaar mooy ticket li des bëreetul salle bi pare na lumière bi lépp instant yii nii ñuy xaar mooy lan 18 heures wala 19 xale yi ñëw xale yi pare nañ seen robe yu baax waale daal na ñëw waa Casa moom la ñuy xaar. yéen daal pare ngeen. ñun pare nañ ba yàgg na. Ah. mbaa xam nga ne waa SEC tamit nee na ma pare na. waale pare na waa Casa nee na ñoo gën a pare. waaw kii mooy Jean Louis kii mbir mi daal bu nekkee jëmm la kii mooy bopp bi maanaam ñun moo nu andi moo nu dalal billets yi lépp moo ko dagg xale baa ngi nii taxaw l'organisateur numéro un daal mun naa ne moo nekk nii taxaw Louis foo toll ci organisation bi. waaw mais Fapal ñu ngi ci kaw Fapal ñu ci kaw métti na bon ñu ngi daw ñu ngi lijjanti mais bon sant yàlla quand même ah, ça se passe assez bien xam on avance. Euh, woykat bi def na li mu war a def ba pare en tout daal instant bi moom daanaka people bi la ñuy xaar quoi vraiment lépp lu ci war moom def nañ ko bu su ñëpp a ngi fii voilà tout se passe bien alhamdulilah quoi vraiment. gis nañ coono bi dem ba léegi yaa ngi daw hôtel yi artistes yi yaa ngi gérer toogoo benn yoon yaa ngi jël sa aéroport gis nañ nga sonn ci lool mais luy engouement bi nga am ci événement bii nii lan moo ko waral. waaw mais événement bi xamal li ci garaaw mooy c'est la première fois muy am Maroc donc dafa war a doon réussite quel que soit alpha muy qu'il pleuve ou qu'il neige comme on dafa war a doon réussite quoi parce que c'est la première fois léegi réussite boobu noonu moo ñuy permettre déwén ñu mun ko réitérer xam nga di ko def di ko defaat te je pense que muy woykat bi muy euh, muy man wala muy keneen a keneen ñaan nañ yàlla xam nga déwén ñu fekkaat ñu fii ñuy waxaat même sujet bi di waajalaat comme ni ñuy waajal nii dem xam nga yëngal saal yàlla baax na dina dox waaye côté vente ci kii foo leen ci toll mbaa yi fi ça avance bu baax a baax a baax. loolu laa doon wax léegi nii parce que dama doon woo sama vendeur yi ku si nekk ma koy laaj euh, est-ce que dese na ticket parce que instant bi nii euh, vraiment duma ma la nëb bon lépp naa xam nga affaire yi presque mu ngi waaj jeex parce que xam nga rek wéy <laughs> waali moom waaw mooy loolu donc euh, gars yi vraiment ticket yaa ngi dem amatuñ dara daal vraiment luñ si si luñ si kii ñun gars yi ñaan yàlla fekk ko xam nga léegi nag euh, guichet fermé bi si des ñu dóor guichet fermé bi rek avancé ñibbi Dakar. ñoo ko déggandoo yéen ñëpp dégg ngeen ko organisateur moom ci boppam moo ne ticket yi des guichet fermé bi lay xaar fi mu nekk nii kon xel mën naa war a dal ñu laa def sama jàllale ko ba suuf jëlal del yéeg yéeg del yéeg monte awo waaw yéegal de bu egsee ba ci fii ca pandaw gi nga taxaw nañ dugg ci biir hôtel bi génne gars yi tey nga xam ne Maroc du yomb ndaanaan yëpp a ngi fi kii ndaanaan la kii yaakaar ne Sénégal kenn du leen ko présenté njoleta njoleta la nii borom para ripi borom paraara xew ci jamono dë dëkk bi nag nii ci loxoom amee njole du ma laaj dooma tontu waxal lu la neex Sénégal ak waa Maroc. waaw xanaa di xamal ne waa Maroc euh, kontaan nañu. boo gisee bi nu ñëwee ci hôtel bi ba tey fan si yaa ngi ñëw gis nga li ñu sol léegi fan sa ñu ko wàcc léegi sama rakk yi toog ñoo ma ko indi léegi maam faama sama xarit sama rakk fan su mbaaco sama fan sa gis nga léegi la ñëw na ma simeekul sol lii ba ba ngay dem li ngay sol maa la koy jox loolu bëgg mënu ko wees ñii moo tax ñuy góorgóorlu ñii ñoo tax ñuy def ñu duñu bàyyi musique ñii ñoo tax lu ñu def ci musique dañuy d'accord parce que ñu la bëgg daw na jar na daw ba dee ngir ñi la bañ leen di ñaanal gudd fan ak wér tey nag Maroc du yomb damaa indi juróom benn fukki fer dina mel ni njar ndem may sa tend ja tubaarkàlla tey jamaano ak yeneen i façon sa pararipi mooy sa para waaw njole man ginnaaw fer yeeg yooyu noonu yëpp njole yaa ngi xeeñ loo xam ne man lii xaw ma la waa njol li ngay xeeñ lan la jigéen dafa war di xoqatal lii mooy xoqatal jigéen dafa war di nebbi nebbi lii mooy nebbi nebbi ay waa ma dee da sa faqit rek tey ma rok daanu dama naan jigéen sabari ne ràccagin dafay toog ca wetu yaayam mu koy diggal lu mu xam wax kooko muy njaariñ waaye jigéen dafa war di xeeñ nebb nebb lii mooy nebb nebb waaw waaw nebb nebb est-ce que xam ngeen la Ndiolé bandi la est-ce que xam ngeen la Ndiolé Tall bandi la man est-ce xam ngeen Ndiolé bandi la kii lii tax man ma ragal ko nebb nebb nee na jigéen day xeeñ nebb nebb waaw jigéen day mel ni Adja Cissé si sengaariment da mel kenn du yow borom du ñu taxaw ji bi ñu continuer beneen daanaa a ngi nii toog xale bi xale bi xale bi borom fotomaa ngi nii borom coppatee ngi nii xale bi nga xam ne nee naa njool daa téye Dakar amee waaye bu ko téye main gauche kii ko téye main droite waaw waaw Dakar yéen ko ñëpp di dox ak moom andi ngeen ko Casablanca nag yéen a ngi digg Medina um place ngeen dal fas yéene waajal bés bi mbaaco ne waajalee bés waa dëgg neexul salaamaaleykum rek laay wax waa àdduna ndax 2STV suñu 2STV la waaw may wax ne leen ñëpp nañ préparé rek incha allah ci kàttan yàlla ñëw nañ ak doole nag ñëw nañ ak doole parce que Maroc ñoo ñu doon laaj eh, te ñëw nañu <laughs> te xam naa ne bi ñu ñëwee foofu dina wàcc tey spectacle bi yow noo ko gisee nak ngay dugg see da ngay play back da ngay live wala man de gis naa da nga bu baax a baax dem yi dañoo taxaw di réunion ci yow évolution ak ni nga garaawee boo ne der ci dermatologue yi nga bokk fan yii waaye Mbacso nay doxalee mais Fafa xam nga fii dafa am ñoo fi yap ci orchestre bi. taman te man taasu rek laay def. mais Papis Ndiaye daf ma sonal. <laughs> nee na ma keroog euh, Waly ba muy joué fee nu mu tudd. Codoog euh, Ousmane Ba. Mhm. ma lay woo sa robe bu rëy naan la bul wax aj leen loxo yi ma ne ko dama koy aj ba mu neex. tey waa Maroc dañuy aj loxo yi ba mu neex ndax aj leen loxo yi dafa neex. ambiance la ànd ak xale Maroc ñu ambiance ñoom maam Fama xale ñoom Amina ba ñëwee ba ñu ngi ñuy teral ñu sol ni ñoo ñu ko jox nañu sol leen ba mu neex xam nga ñun comme ni ko Ndiolé waxee léegi rek fans yi tax ñuy góorgóorlu te ñoom dañoo baax bëgg ñu fu ñu dem nag ñu fekk ñu fa fans yi partout dans le monde fu ñu dem man moom mbaaco aw ma seen fay kon nag tey dinaa playback incha allah photographe photo ma def coppati ndax waa Maroc dañu namm nag ndax comme mosuñu fi ñëw ñu ngi fiy soog ñëw tey dina métti trop ci ñoom te dégg naa roi bi daf laa bëgg Mohamed Sy daf la bëgg lool roi bi waa léegi la ma woo hmm. roi bi yéen bàyyi leen ma wax sama wax lan moo tax nit ñi gëmuñu ma soof soof soof roi ñoo ma woo ne ma dañ ma bëgg a gis pour ma dem ci palais bi man ak yow war a ànd gisoo ni nga solo ni eh, ma yónnee lii Mohamed Siis nii la ma def ne ma faafa ooma ne ma zelëf la yaa kayfal xaal anta muridina fii léegi yaa yénne ma mbax ne yénne ma jaalaal bi ñu la ma def gëna ma sama réception yi subi waay ñu remarqué waale fu mu nekk rek yaa ngi koy dooleel yaa ngi ci wetam koy taxaw lu waral loolu noonu si diggante waale waaw muy lu rafet rek ndax Wally Seck moom sunu frère la te waale bu mu jógee ba tey ñun la àndal foo wax mu ne mbaaco mbaaco mbaaco mbaaco waale daf ma bëgg ba ñëpp xam ko fu mu jëm ci àdduna gis nga fu mu jëm rek maa ngi ci ginnaaw ba tax na waa Maroc bi bi ñu ko organisé mu ne foog mbaaco ñëw ndeysaan nit ku baax la ma koy ñaanal yàlla moom farambaaren boobu mu gudd fan am wërsëg bi gën a yokku xaalis bi gën a yokku lépp gën a yokku parce que moom bu amee rek ñëpp am parce que gis nga ni mu jàppee orchestre am man damay ànd ak moom di voyager mi ni muy jàppee orchestre am ak ni muy jàppee yéen ñi nga xam ne yéen lay àndal ni mu leen jàppee rek man loolu dafa sedd sama xol parce que day partagé xol bee yaatu kon moom na am xaalis bu amee ñëpp am. incha allah dina am xaalis parce que bokk kan la waaw du ma taxaw de damaa bëgg ñu dem ci réception ba jibi balaa maa dem ci réception ba ana xaali kii kii kii kii mooy Paco. Pam Modou Mbaye kii nitu démb Waly Seck la su nitu démb la Thierno Gadiaga ngi nii man ak moom ñoo bokk chambre sa guddi daf may weex ko bëri sa jot waaye Paco. waaw Cheikh lay waajalee bis bi. waaw Fafa ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la wax sooy bienvenue fii ci Marrakech. yow sama frère nga doo sama nitu démb yow tey mon frère. waaye di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla 2STV. billaahi non quand mu yor sécurité bi yow nooy waajale sécurité bi. waaw ndax sécurité Wally sekk nag ki ya Sénégal kii ya yor sécurité Wally Seck du dem fenn ci àdduna te newul ginnaawam téye ko protéger ko nooy waajale bés bi lépp waaw ñëw rek nuyoo ji dëkk bi nuyu la yowit faafa ngay sama xarit ñu hmm. bokk chambre daal mooy li ma wax rek waaye moo aar boppam ñun dañuy mottali rek waaw nañ ci dugg si bismillah rahmaan rahim mu génn si alhamdulilah rabbil alamin di leen gërëm di gërëm waa 2S yëpp leen gërëm waaw ñëw nag ci jàmm kontaan nañ kon ñibbi si kon ba ci kanam 18 heures xaali mbay dogo tas sa mbax kindir la mi naar yóbbul ma xaali mbay yóbbu ko yóbbu ko yóbbu du fekk fii léegi gi gi gi gi non non xaali non guddi la <laughs> xaali mbay ñëpp xam nañ la ci neex am ambiance am xorom mën a fecc mën a tëgg talaay nga boole tarkalla moo bëri Marc loo fi andi tey Lamine maa ngi ñëw ci yow. waaw mais xam nga li naan min nañ géew dañoo miin géew nag te dañuy ànd ak nit boo xam ni yàlla dafa defal mu nekk nit boo xam ni dafa mën bis mm-hmm. ñu muy àndal mën bis ñun bis duñu bett chaque jour ma ni bis duñu bett déedéet barke alxuraanu karim bis mënuñoo bett bis mënul rëy ci ñun mm-hmm. te ci kanam tuuti yaa maa ngi dégg naan Lamine Naar yóbbul xaali gawlo xam na mu soo mag la yóbbu ñun ñun du ñuy bëri ci mbedd dañ naan bëri fañ koy defee te bu ne buñ ci waree bu buñ ko waree def dañ koy def ak xol bu sedd def ko euh, mbégte li tax mooy booy ànd ak nit yoo xam nga yaa ma gën a xam li ma lay wax ngay ànd ak euh, lekkul dara bàyyi la euh, baax yéene la yaru no nekk patron boo xam ne moom ñun ñu nekk ci moom sax patron gi daf koo jël jox ñu ko kon nit ki booy liggéeyandoo ak moom faafa di ànd ak moom moom desalu la dara yow waroo koo desel dara moo waral puudar bi moo waral caay ji moo waral bukkeeg yëpp xam nga dem waali daf koy wax chaque jour euh, nekkuñu tëgg tëggkat boo xam ne euh, faafa sabari dañ cee judd mën ko nag macha allah mais euh, bu ñu amee tey jii ñuy joué benn soirée may sol caaye wala may jël ay poudre di ko poudre xam lu waral loolu bëgg mu bëgg mu neex ak ñi ànd ak moom neex ñëpp kontaan mais ci kanam tuuti ma Maroc euh, dinañ xam ni ñoo nañu Maroc te dinañ ñëngu waaw ñëpp ni fi yaa ngi gis ki ñëpp amul ku ku ku ku waaw ñëpp ñoom mbaajo ni fii jolee ma pend maa ko fii seen gaay yi di jël kenn manqué wu fii nag indiwuñu fi caaya hmm. déedéet loo fi àndi faafa waaw surprise <laughs> tey ma nag daanu eh yow nañ doxal barki yu tibi gawlo ay gawlo gawlo ku la xam-xam la ki cool gawlo ku la xam-xam la ki talmat bu gaaw gawlo ku la xam-xam la ci ay yëf du ma yokk nag du ma wàññi damay bàyyi nga doxal wax ak sénégalais yow lan nga andi Casablanca ndax des fois da ngay yor xiin des fois nga yor cóol léeg nga yor ñaar yi mu tudd sax. Tumba Tumba mhm. Lamine loo andi tey Maroc. fii li ma fi indi bari na ginnaaw bi ñu nuyoo sénégalais yëpp di nuyu monde entier di nuyu waa diaspora bi. di leen siyaar yéen waa 2STV yi ngeen xam seen tele bi macha allah yal na leen suñu borom defal jàmm yéen a ngi bégal doomu aadama yi di def lu neex di wax lu neex teg ko ci fulla ak fayda ak discipline fii nag liñ fi indi bari na mooy li may saa su ne rek Ameth Thiou xam ji dafa am solo nee na musique xale. Mm-hmm. waali xale. Mm-hmm. ay fan si xale. Mm-hmm. animateur u xale. lépp lu xale bokk rek neexul. dëgg la tey fii dina neex dina yëngu. indi nañ sabar yi indi nañ tumbaay indi nañ xiin yi indi nañ lu ne ndax comme c'est la première fois ñu tëgg bu buñ fi ñëwee fii dina mel ni ñu ngi soog a commencé. ndax ñun ci lañuy la dox ñun fu ñu dem rek heure bu ñu demee rek day mel ni tey la ñuy soog a door. ndax ki ñu àndale mel noonu macha allah mu nekk xale bu baax xale bu mën a woy macha allah xale bu am talent. atomique lañ koy xam. Lamine Naar tey nga gis doo gis. tey gis njardeep. mos ngaa gis faafu mu fëx. mos nga gis Lamine Naar mu naaw ba laal gis faafu mu laal li. mos nga gis Lamine mu akorobas. mos ngaa gis faafu mu waaj. gis Lamine Naar mu mambo. tey nga gis yooyu yëpp nag Lamine Naar mel ni xoolal non. Ah. <laughs> waaw kay beneen daanaa na ngi nii Ismaïla ki suñ xarit la tamit. waaw moom léegi Maroc nga nekk. fi ngay yëngoo yaa nu dalal yaa dalal gan yëpp noo gisee waa Maroc parce que yaa ngi gën a min terrain bi nag te yaa ngi nekk ñoom guddeeg bëccëg naka la ko gars yi di waajale waaw Fafa man maay ziar ñëpp bon événement moom gars yëpp a koy bare comme ni ma la koy waxee rek Wally benn doomu Sénégal la suñu frère la ñun ñëpp waaw te gars fii moom ñu ngi koy pare quoi am fii événement tamul di am wala benn Sénégalais di fi jouer donc dëkku naar la. dëkk la boo xamante ne ni bon ñoom seen culture bopp la ñuy topp donc du fait bu amee ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi fii di fi liggéey ñeneen di jàng xama